du watawaasa bi ak dong moo tax may wax nag mais dama ko gis ay yoon ay doomu aadama di ko def yéen ñu koy def maanaam di fowee diine ak di fowee doomu adama yi ak ñàkk diñ ñàkk personnalité ngeen koy def ci ay groupe te seetlu groupe yi ñu koy def yëpp du ay groupe bu caaxaankat de da fekk groupe boo xam ni diine dañ ko fay jàngale group boobu day am diine man mii sama bopp wallahi man maa dem juma bisub àjjuma te loolu ñu koy def ñëpp ay taalibe lañuy nekk ay taalibe ñoo xam ni ñu ngi woote woo ne ci benn sëriñ lan làqu ne mag ñi lañuy ñuy man ma dem juma ba ma demee juma ma ubbi benn groupe ba ma ko ubbee ma gis ñu sànni fa ay film porno ci biir néegu yàlla ci biir juma man maa ko ubbi ci biir juma est-ce kon xalaat ngeen li ngeen di def. ndax léeg-léeg da ngay gis ci group yi nga xam ne dañuy wax comme diine yàlla nee na yonent bi salaa salaam nee na nit ku bokkaale ñu ne ah lii de bokkaale la yonent bi salaa moo tere lii yàlla bëggul bokkaale nit ki yàlla la nit toog ne la ah kii de benn sëriñ bi woote woo yàlla ñu dugal ko fa ne sëriñ bi di wax naan ay yàlla lu dëgg ay caaxaan caaxaan ñu dugg wala nit di fecc nga di fecce gii ñuy def ni du diine ay nit dugal ko ci groupe ba ko fa dugalee toog di ci wax di défendre diine yàlla gi ndax caaxaan bokku ci diine gi ay fecc way bokku ci diine gi ay toog fii di woote woo yàlla bokku ci diine gi ay toog fii nit jékki-jékki am ay taalibe ci yow alquran mokkaloo ko xamoo alif xamoo baa xamoo laam nga ne alquran li nga ci xam lépp mooy waaw ndax waaw lu tax nga xam ko dafa nduróog siis ndax français nga jàng loolu bokku ci diine gi ay nit yu bari topp la nga leen réeral yu mel noonu la nit ñi ñëw comme yi am rek vidéo yi nga xam ñu ngi koy dugal fii nit ñi ñëw toog di ko weddi pour yee doomu aadama yi léegi loolu nga ñëw pour sabotage sa bopp nga koy def pour sabotage loolu tax koo xam ne diine yitteel la ci am na ñoo xam ne groupe musique ñu ngi fi man dugguma ci ay groupe musique dugguma ci ay groupe caaxaan man ak sama morom yu bëri léegi nga ñëw nekk ci biir jumaa ci néegu yàlla nga ubbi nga gis ay film porno ñu dugalal la ko ci groupe benn sa moromu papa groupe bu bul xam ñi fi nekk yëpp ñan lan ay ñaata doomu aadama fii sa sunuy moromu bàyyi ñu ngi ci groupe bi duñ sax wax sunuy moromu bàyyi nekk ci xamoo yow ban façon doomu aadama moo ci nekk nga ñëw sànni groupe groupe boobu pour décourager nit ñi pour nit ñi daw groupe bi ndax am na ñoom buñ ko gisee yu mel noonu buñ ko sànnee ci groupe rek maanaam bu euh, ci biir groupe groupe kii quoi ñëpp ay daw am na ñoom dañuy daw am na ñoom buñ gisee ay finu prono rek rek la xaw la wala xota leen wax ndax lu bon bëgguñu ko seetaan kon yow yaa fa dugal lu bon la dawloo nit ñi yow yaa bon yow mi fa dugal loolu dama ko si gis ay groupe yoo xam waxuma Watawasaw bi daat donc waaye ay groupe yow da ngay jékki sax ñu jékki-jékki rek gis nit jékki-jékki sànni la ay film porno ay ñuy sëy ay façon sëy ñu ñaaw wallaahi mais loolu seen yaay yaru leen ku ko def sa baay yaru la ku sëriñ yaru la ku ko def kooku baaxuloo doo nit ku baax mais nañ ragal yàlla borom bi subhanahu wa taala nañ bàyyi caaxaan yi pour décourager loolu pour kii yooyu ku koy def di fawee diine di néegu yàlla man ba ma demee si jumaa ja ma gis ubbi film porno ubbi groupe bi rek gis ko ci jàppal ni yow ma ko def man ba ma sama jubluwaay du si néegu yàlla borom bi subhaanahu wa ay nit def taatu neen di sëy ni mbaam ni ay mala ma ñëw kii ko fa yow la du man bàkkaar ga yaa gàddu te loolu ko moytu def nga ko keneen ragal leen yàlla borom bi subhaanahu wa taala ragal yàlla léegi maanaam tamit nan nga mën a ñëwee fekk nit ubbi groupe am groupe Watawasaw Billahi tamit maa ko ubbi ñëw fekk nit ubbi groupe Whatsapp am teg nga ñëw nga kidnappé group ba nga génn ñëpp at mim génn ma ñëw tudd ko def ci Watawasaw bi ak tu def ci beneen tur def ci beneen tur génn nit ñi nga foog ne loolu sa bopp nga ko def loolu tooñ la ci sama tur la group bi nekk mais bàyyi naa la ak yàlla te barki alquran bu bu ñu xamoon li ci tooñ tooñ sëriñ bu la ne mën na la garanté sa tooñ yi nga tooñ day fen sëriñ bu taxaw ne la sa tooñ yi ngay tooñ ku xam lu ci tooñ ku ci xam lu ci àq ku ci xam lu ci ñaanu ku nu tooñ ñaanu ku nu tooñ day dal waajur day dal ñaanu kuy tukki day dal yent bi salaa salaam moo ñu ko wax ñaan yi dal kon nanu moytu tooñ tooñ baaxut wallaahi tooñ baaxut ñoo fekk groupe jàmbur rek ki tepe nii ubbil sa groupe groupe bi bu la neexul nga quitté nga génn mais def ko jàpp ni loolu ngóoral nit ki mën na ubbi beneen groupe mën na ubbi beneen groupe bàyyi groupe boobu abandonné ko ubbi beneen groupe mais lii tooñ weesuwu ko mootu leen tooñ mootu leen tooñ lii dëgg-dëgg lii la seen sëriñ am lii leen leen jàngal lu bon lii la leen jàng ay koy def du ñeneen lu bon lii kon nit ki bu dee amuloo ay argument yow loo xam ne yow tey gisuma benn nit koo xam ne ne tey day tënku ci alxuraan ak sunna di def yenn yi ndax tooñ yetu sa jàngalewu képp ku koy def bokkoo ci alxuraan ak sunna képp ku koy def dundoo dund yetu salaa salaam ndax baaxul tooñ dafa garaaw léegi kay yow yow bu dee am nga ay argument ci waxtaan tappale ak caaxaan moo ko waral bu dee am nga waxtaan yow am nga xam-xam yow am nga kii ñëwal nga daaj ji wax yi nga leeral dëgg-dëgg kii lim nekk caaxaan la sa jubluwaay nekk ci pour leeral caaxaan pour nit ñi mën a xam ak jub ñu dund ci mais amoo leen ak lay amoo leen dalil amoo leen lu jub moo tax amul loo leen am lu dul lu bon lu dul fenal nit bu leen ko déglu yàq deru nit bëggoo leen débat wax ngeen yuuxu ku wax ngeen saaga ko sànni fa ay pil mu lu bon lii ngeen am mais jël leen seen lu bon barki alquranu karim jël leen seen lu bon ngeen dem mais so naa la de di la bëggee bàyyi di ñaanal jàmm bàyyi leen seen caaxaan ñi ngeen di def li ngeen di def ni nag xam leen nag seen bopp ngeen ko def de defoo kenn de wax ba pare ak ñàkkuk fayda la wallaahi ndax nit ku am diñ am fulla yaakaar naa ne yenn yi doo ko def nit ku way maanaam ku way di rek kay def loolu mais seen yi nag ak seen xamadi ak seen affaire yi ngeen dem barki al alquran defoo leen ko kenn ku dul seen bopp waaye yow mi ma def lii moom kidnappé groupe bi fekk ma ubbi sama group jàmm yàlla kase tax ma ubbi ko du leneen yàlla ñu yàlla àtte yàlla ñu borom bi subhanahu wa taala àtte tooñ nga bàyyi naa la ki nga xam ne moo am doole yow mi mën a tooñ mën a toog def lu la neex xawma la mënuma ci yow dara waaye yàlla sunu borom subhanahu wa taala mën na ci yow dara yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala àtte subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk